toujours dans votre acte du jour de ce 21 août 2024 suñ fa jógee dañuy seeti ki nga xamanteni jité président Faïda parti politique bobu di Mamadou Abdoulaye Guité, analyse am ak gis-gisam bu par rapport une comparaison sur le nouveau régime de Diomaye et son premier ministre ak ki nga xamanteni prédécesseur du président Macky Sall nañ déglu Abdoulaye Mamadou président en même temps président de l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal di OMART <laughs> Macky Sall dafa mbapat Mapis Macky Sall Abdoulaye Wade da ko defar defal ko échelon yëpp Macky sàll moom puus mu dem puusul mu dem la dafa pare entraîné ba ba ba ba pare nekk président Sénégal kenn jox ko pouvoir moo dóor maître bi mooy Abdoulaye Wade moo ko gagné nekk président de la premier jour la dafa wàññi ceeb même pas dix jours mu wàññi ceeb wàññi diwlin wàññi daara yëpp kooku naanaan la kooku boo koy wax sax.

Euh, ci la Macky Sall jël ga mer gàddam wër région yi di di xool laaj sénégalais yi lan ak lañ ñuy indi lan lañ mooy seen besoin moo tax mu indi bourse familiale mu indi BRT bi indi TER bi indi semi euh, couverture maladie universelle indi Macky Sall sax booy wax lu mu indi fii gaz bi pétrole bi yëpp te te tey ma laaj la Sénégal warul ndool ñoom balaa opposé bi ñuy opposé lan la ñuy wax dañ ne Sénégal gaz ak pétrole la ngi fi léegi lu tax lu empêché Ousmane Sonko Euh, dëkk bi nu mu méttee nii mu génne gaz bi pétrole bi. en fait man lu mooy. non non dama lay laaj lan moo tax. non mais nag c'est li ma wax c'est sérieux lan moo tax yéen laaju leen Ousmane Sonko dee nga woon Macky Sall 10 pour cent euh, la am ci ci ci ci ci pétrole bi ak gaz bi léegi moom jël na réew mi pétrole ak gaz bi mu ne wax mu ngi ci réew mi mais lu tax mënu ko pétrole ku ko yore waroo waroo waroo ndóol ku yore pétrole ak gaz waroo ndóol kon kon day firndeel. li leen doon wax ne pétrole gaz bi ay wax la rek la dara ñoragu ci kon léegi de loolu day firndeel ou bien su loolu firndewul na jël pétrole ak gaz bi na ko exploité léegi léegi. Ah, xale yi ah, xadafi xam nga xadafi lu mu defoon. xadafi lu mu defoon dafa jël jeunesse bi ku nekk mu ubbi la compte bancaire weer bu nekk sa compte un million de su pétrole bi ak gaz bi tey Ousmane ko en principe te loolu dama ko koy proposé nii à face à à l'écran Ousmane pétrole ak gaz bi nga ne woon mu ngi Sénégal dama bëgg nga ubbil jeunesse bi nga xam ne ñoo la toppoon dee ci topp projet ba dee ci nga ubbil leen compte bancaire muy Wave muy Orange Money weer bu nekk nga dugal ku nekk si compte am un million de francs CFA. li ma jaaxal mooy loolu loolu man président gisee parti Fulak Fayda maa la ko laaj. maa la ko maa la ko laaj gisee amoon na ay jamono gisee gisee Ousmane Sonko neexoo loolu sax bëgg nekkoon nga sax yow askan bi su ma jumul. waaw nga si si leader yi sax mais man dama toog ba saa rek gis gisee daal di tiré. non loolu est-ce que est-ce que amul. mais mais mais est-ce que mais mais est-ce que gis nga ma ni ma tiré ci ci ci Diomaye xam nga gisoo ma ma wax ci Diomaye dara de. wala wala wala est-ce que gis nga ma télé ma toog télé ba wax Diomaye dara gisoo ma ko de xam nga lu tax bi ma nekkee yeewi askan bi ba ñu lekk sama xaalis. kan moo lekk sa xaalis. waaye Yewwi Askan Wi. <laughs> dama cotisé dama cotisé non dañ ma dóor dama cotisé dama dañ ñëw laaj cotisation ñu cotisé après ñu def collecte mooy ñu ubbi collecte bon ay milliards ay millions presque un milliard dugg. levée de fonds quoi. waaw levée de fonds. ñoom ñu ñoom ñu def ko bii bukki bii ñur bii sàmba ma porté ma génn porté plainte. kan moo lekk sa xaalis. mais ñoom ñoo ko lekk Ousmane Sonko ñoom ñoom Khalifa Sall euh, euh, kii nu mu tuddati waa ji euh, ki nekk léegi ministre de l'environnement là nu mu tuddati. waa ji ne woon surtout surtout Sonko rek di ko di ko di ko jaamu là. Cheikh waaw Cheikh Tidiane kii. Cheikh Tidiane Dieye. ministre de man d'ailleurs d'ailleurs am na benn décharge boo xam ne sax moom moom moo ko defal Cheikh Tidiane Dieye moom defal décharge bi cotisation boo xam ne 500000 la moom laa ko jox mu déchargé waxuma la yeneen à Pikine nag on a fait des on a cotisé des millions là-bas mais pour te dire que man ci laa xam ne ñii mënuñu réew yow bu dee ay cotisation ni dañ la jox. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo analyse bu am solo nee naa la réew même soo ko jiitewul sax da war am xam-xam te xam-xam koy am. kon li mu wax ci Macky Sall daal pour mu def résultat yi Macky Sall dafa mbappat te ku mbappatul mënoo doon un grand champion tey Yékini pour mu doon un grand champion dafa mbappat Tyson dafa mbappat Balla Gaye dafa mbappat Modou Lo dafa mbappat Macky Sall nag dafa mbappat Ablaye Wade formé ko avec les grandes écoles jëmale ko ci wàllu parti ak wàllu gestion moo tax kooku day mën a def résultat mais tey ñi fi nekk tey ku nekk xam nañu mbappatuñ dañoo yeewu rek dañoo yeewu rek indi populisme indi révélation dénomination calomnieuse napp sénégalais yi miné réseaux sociaux ba sénégalais yi je crois que nak sénégalais yewu nañu moy lima wax sànq rek caga kenn du nax ñaari yoon ndax nañ leen ba ngeen yóbbu leen ci bop réewu Sénégal député yi ñu ngi ñew muy assemblée nationale j'espère que discours bi ngeen dégg demb génn ci émotion émotion mo leen dugal tay ci ndol bi. émotion moo tax tey amatu leen xëy émotion moo tax tey ambulant yi amatuñu place émotion moo tax tey jakartamaan yi taxawuñu émotion moo tax tey sept cent employés ñu dàq leen port émotion moo tax tey santé bi paralysé wu moo tax tey ndaw yi di jël gaal gi émotion moo tax accident yi am ci kaw tali bi kon ku leen ko yóbbee ku dul ñu fi toogoon doon leen wax ay discours yoo xamante ne ñooñu mbappatuñu kon sénégalais jël leen seen responsabilité ñi ngi jëm ci ay prochaines séances lii nga xamante ne mooy législative jàpp naa ni wote ku leen neex mais tout sauf ku bëgg dund nag ci ndóol dund ci département dund ci nord la dundu ci jaay la li nga xamante ne mooy arrestation arbitraire démb dégg ngeen ko annoncé na ko nee naa leen nit ki ak mën-mënam su ko wàccee rek mooy loolu na mu doon waxee di temps de l'opposition noonu la waxee alors que yàlla su la falee ba jox la njiit nga jiite ay nit da war a am tempérament boo xamante ne da boole nit da ngay xam luy cohésion sociale dangay xam lan mooy médiation mais nit ki lu mu xamul mënu ko tari kon de grands sénégalais yi à vous de juger je crois que Macky Sall du moromu kii nga xamante ni ñoo fi toog ndaxte ki nga xamante ni dafa mbappat ak ki mbappatul mënuñu bokk.